juge bi dama ko wax li ma ko wax dama ko ne Sénégalais dootuñu nangu réew mi di tàkk ci benn acte boo xam ne benn magistrat moo koy pose parce que nag moom leen nit ñi de moomu leen nit ñi de doxal leen yoon wax droit jàmm ne ñooy lu ko may nag su ngeen taalee réew mi du ngeen ci mucc loolu nag maa ko ko wax te am naa sañ-sañ bi parce nag dafa doy. ñaari bakkan yi fi mujj rot su juge cour juge cour defoon liggéeyam xam ni arrêté bi préfet bi jël arrêté bu illégal la mënul tere nit ñi manifester su ci baas boo xam ne amul kon bakkan du rot na magistrat yi delloo ci seen xel ci yàlla te bàyyi li ñu nekkee ñoom ñépp xam nañ ni da gis dara am magistrat boo dajal ci ruq mu ne la li mu def du yoon de waaye xam nga rek avocat yépp xam nañ ni lii du yoon waaye ñun jàng nañu nag dofuñu man nu mu tuuti tuuti am na DEA en droit am nañu ay avocat am nañu ay magistrat nañu bàyyi dunguru bu ñu nekkee ci Macky Sall te doxal yoon suñu buggee jàmm am ci réew parce que ma waxaat ko moo tax mayoon yoon gars yi jotagul dem leen toog bu dee bëgg nañu taal réew mi rek nañu essayer def lu ñu warul def ci dossier bi léegi naa Macky Sall ku mu gis ne ko lu fi xewoon du fi xewaat lu ko raw moo fi xew nañu delloo ci seen xel te respecter sénégalais yi réew mi tal na leneen nit ñi lekkuñu naanuñu nit ñi liggéeyuñu nit ñi fajuñu réew mi nit ñi sonn nañ ngeen xëy suba ba ngoon jot di complot pour ni ngeen liquider adversaire politique loolu ba kañ ay magistrat leen ci jàppale foo mu jeex wax nañu tamit ni xaw ma lan ay mystique ak lu ne man de ku ma xam xamee moom mystique ki wóolul boppam mooy mystique ndax bañ duggee ci bureau ba si suuf yépp ndox la woon avocat yi eh non bu jàll lii saafaral gaa ne ko waa mais doyen ndox mi nu mu demee mu ne non est-ce que ci toiture bi la jógee toiture bi de moo gën a sec fii est-ce que du ci trois types la jóge greffier bi ne ah non non clim bi la clim bi kenn taalu ko fu ndox di jóge gars yi ne noonu nañu xaar ba ñu fobeere man ma dox jaar ci kaw ndox li dem toog jàpp sama ñàmbur ndax man Macky Sall su dee xërëm rek la yaakaar du musa am dara ci man te teguma ko fenn lu gën yàlla wóoru ko ak nit ñu baax ñu nekk ci réew mi di ma ñaanal te kenn xamul nu mu toll man yooyu jaaxaluma ma nga bandaas loxo bi fii ba fii xam naa dañ ko ne bul nuyu gars loolu day wane manque de confiance te juge bu manqué confiance rek def pression ci kawam day yomb juge bu ragal def pression ci kawam day yàgg moo tax wax naa ko ko nee naa ko pression yi ñu lay teg yépp xam naa ko Antoine Diome mi ngay jàppool chaque jour ñu lay wax yéeg nañ ko menace proposition yi indi nañ yéeg nañ ko parce que ku mun a xam document yi ñu am xam nga ni réew mi jaaxaluñu ma ne ko mais na nga jël sa responsabilité parce que réew mi du jeex de fii la nekk loolu moom maa ko ko wax te je kon lii moo xew démb amul leneen te wax nañ ko it ko naa fàttali fàttali naa ko nag ne ko man. j'ai rien contre lui te dafa di juge boo xam ne ñi ko xamoon démb ak barki démb nee nañu ku jub la woon ku dëddu woon la démb ak barki démb laa wax ndax gis nañ fi lu ne te dossier bi du dossier du n'importe quel dossier ndax Macky Sall bakkanam la ci teg nee naa ko xam naa liñ la sant liñ la sant mooy même su dee dossier bi amoo ci dara fexeel rek ba renvoyer en procès mu doon un procès moral ndaw si ñëw taxaw naan fii la ma def lii fële la ma def lii nangam nangam ma ne ko loolu lañ la sant te loolu du sa liggéey yow xam nga ni loolu du sa liggéey ma ne ko tey aw ma dara contre toi waaye nag dossier bi balaa ñu la koy jox sax février 2021 bi loo dossier bi ne kët na jon nga publier woon sa page Facebook benn article boo xam ne dañ ma doon saaga ci article est-ce que kooku jaadu na man ma ma wóolu ko koo xam ne joxaguñ koon dossier bi xamuloon sax ni dinañ ko mus a jox dossier bi mu publier ci page Facebook am benn article benn waaye Macky bu nekk France bu ma doon saaga man ak bu ma condamné ci dossier bi ñu teg ci ay neuf mois ñu woo ko moom jox ko dossier bi est-ce loolu war na dal suñu xel ñu ci Sénégal la ñu ne ma ne ko sa digganteeg ñoom xam naa ko. ndax xaritu Aïssata Tall Sall ba tuddee ko doom te Aïssata Tall moom bi affaire bi amee moo moo fi génne woon force spéciale force occulte moom ay Tall Sall ñoom ñaar duñu duñu réeroo xaritu Abdoulaye Daouda Diallo la bugguma dugg ci ay affaire u nett ku bandum sax waaye li xew yépp xam nañ ko ma ne ko mënuñu laa wóolu bis boo defee li nga war a def nag dinañ xam ndax mën nañ laa wóolu wala mënuñu laa wóolu lii moo xew démb ci bureau des doyens des juges amul leneen